ci ENAM ba ci état senegal Amadou Ba daanaka fépp la jaar te fi mu jaar yépp loolu moo defar carrière ci biir état senegal li mu def niru ko lool. Amadou Ba c'est vraiment koo xam ne la. dafa mu génn ci ENA ci atum 1988 section impôts domaine ci mbirum koom moomu sax fa jaar ñu ràññee ko fa nekk fa directeur jóge fa dem tugal jànge li di wàllum impôt ñëwaat Sénégal nekk directeur général bu impôts domaine ci atum 2006 juróom ñaari at rek. daanaka mu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom lañ gën a ràññee ci ñuy doxal koom-koomu Sénégal président Macky Sall tabb ko mu nekk ministre bu wàlleeku ci politique dooleel parti bii di APR ci nu muy doxee ak nu muy taxawee ci biir Sénégal ku wàcc yoon koo mënti nekk dinañu delloo ci yoon. ci biir Ndakaaru ci élection 2017 yi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar mu am ci mbetteel wante dañu ko tabb ci atum 2019 délégué général ci élection présidentielle yu 2019 ci at moomu sax ci la nekkee jëwriñ ji nga xamante ni moo teewal Sénégal ci bitim réew 2020 ñu génnee ko ci gouvernement bi ci la sax kenn koo xamante ni ci ñoom la bokkoon di ñu wax lii balaa changement wu ci atum 2020 Amadou Ba moom lañ doon gis comme ku mën a wutu kii di président ma Macky Sall ci loolu am nañu ci kontaanul woon Amadou Ba yor na ministère de l'économie et des finances pendant sept tey économie Sénégal xalangu na ba ci suuf. ne Amadou Ba bëggul wax ne Macky Sall warul mën a am troisième mandat. li nga xamante ni moo di poste premier ministre bi. ñëpp di ko xaar président war ko tabb mu war a nekk kuy jiite gouvernement bi amadu Ba nag ñëpp wax ni moom lay doon président dëggal loolu 17 septembre 2022. monsieur le premier ministre. président dafa ne dafa soxla gouvernement boo xam ne ci saasa dafay jublu ci soxla Sénégal yi. moom mu jiite li nga xamante ni moom la ñuy woowee gouvernement de combat. songu di liggéey ci dundu gu cher gi. dañu jël ay mesures ndax mburu mi. wàcc tamit ci terrain politique bi. di jël ay kàddu ci ay meeting. l'État restera debout et l'État est toujours debout. di tontu ci biir assemblée nationale. le Sénégal que j'ai vu c'est le Sénégal où il y avait 32 kilomètres d'autoroute en 2011 aujourd'hui on en a 189. tontu tontu bu ñëpp ràññee sax bi nga xamante ni gouvernement bi dañ ko bëggoon a daaneel ci motion de censure. yeewi leen askan wi de la désinformation de la manipulation de l'arrogance comme mode de communication politicienne. Amadou Ba nu mu taxawee ci biir coalition bi ñuy sax wax am na ñu mu amal ay jafe-jafe. yenn saa yi gars yi dañuy wax yu bari Amadou Ba nii Abdoulaye Daouda Diallo nii mais y a rien c'est vraiment un jeune frère. Vous n'êtes euh, moonte de daanaka moo gën a jige ngir wuutu président Macky Sall ci atum 2024. ah daañu bëgg nañu waaye bëgg nañu suñu mu nekk ay image yu mbégte di wane ni xëy na pare na pare ngir jiite coalition benn Bokk Yaakaar boole ko bot ko ngir 2024